di nga lool yoo xam nga da ngay dégg aéroport ak ci ngay yëg ci ko sant yi normalement réew mi dafa fi dara faat nga am jom miin ak yooyu yaayu arab bu baax bi tubaar fa kàlla macha allah bokk ndeyum awa bu yàgg lool tubaari kàlla lii tey jomb la lu mën a nekk la ba taw arab def ci ba taw borom la def arab def daa la def tubaar fa kàlla macha allah Fatou Ba dañoo am aram soxoru iñaan bay tey jii dañuy zible wala Mbacke Sëñ Touba Mbacke soxoru iñaan nee na fan Mbacke jàmm suñu xol dafa sedd nii fan la baax bëgg ay mbokk ak yaay Mbacke yeneen tibi mooru de bis bi xamoon nga ndam Mbacke dangaa bëgg sa yaay dama la nga ne maa ne dama la laaj rek bilaay dëgg la ñëpp xam nañu famille sëñ maire dañoo naqale ma ne suñu jaar nañu moo ci gaaw di na ku fekk sëy bi yàlla na nga fekk ngénte la munu laa fay waaye yàlla mi ampa fay na la yàlla fay nee na ba ngeen àndee démb la te dara ñaawut nee ku sonn yaa gaaw ku jaaxle yaa ci gaaw di koy gaynde faat nee na problème bu xar yi sa xar ji am yaa ci gën a gaaw nee yaa baax yaa leen di digal lu baax yaa leen di jiite nee na yal na am jàmm nee na seen ànd bi yal na ngeen nekk benn say yàlla bu ngeen tasaaroo nee na sa kër la ñëpp yi daje. nee na dañu dañu teg seen kër ñëw sa kër. te bu nu dikkee lu baax rek ngeen fa nekke defante lu baax wax lu baax ngay togg ci mbana di yekk ca booli yàqoon nag dafa dal fa mu daan dal. noonu nga nàmpe loolu nga nàmp waaw. nee na tegu leen tegoo leen bët te it fa ngeen dëkk tegante bët rek a fa nekk waaye tegoo leen bët ruute mbalewu leen. jaxase woo yal na nga yeggale sa sago nee na lu nit am te lu baax yéene nga ko Fatou Diagne yaa baax Maye Diagne Demba Tabara Diagne Demba bu ñëpp ne yowa ñu ne yowa yal na la jig yal na mel na doxum glace lii ma yor rek teel ma monsieur journaliste teel ma. waaw Maram Mbaye. l'argent l'argent laa yor. ñaari ñaari junni. ci Awa Gueye dem ci Fat sama waa sama doom sama xarit. waaw waaw ah moo joxe ñeenti junni. vingt ci Awa gay jëm ci Fat Mbacke. ah awa lii lu joxe na juróom benn junni. trente mille ci Awa Gueye jëm ci Fat juróom ñetti junni ci sama doom ju rafet mille ci Awa Gueye jëm ci Fat Mbacke doomu ndayam. fukki junni woy fukki junni. et eh waay cinquante mille cinquante mille. ba ma la joxee cinquante mille. pareegul day dem. maa ngi dem dama këntee kii ñeenti junni la dëgg la. muy fukki junni lu mën a waaw waaw. ñaar fukki junni. cent mille ci awa gay ci Fat Mbakke. awa nii rek yaa juddu ci réew mi dëkk ci réew mi di fi def loo baax waawaaw nii lay demee Awa Gueye yaa rafet jiko xaw ma danga koo juddu waale am na la ko yare waawaaw yaa rafet jiko ah. awa pareegul day dem. ko hmm. iñaane woon hmm. koy soboote. dëgg la. waaye hmm. a kon seen ànd bii yal na ko yàlla yëg diw ci diw rek ay mën a doon ngeen ànd ànd bu rafet nag yow li nga wax da nga koo jëf mm-hmm. réew mii ñu toll réew mii ni mu méttee mm-hmm. tase weeru koor nga yëkkati fanweeri junni ñëw yow ko sa doomi ndey ji teel ñeenti junni ñaar fukk juróom ñett waaye awa baax waaw awa geyu noobal nga waaw awa baax man sama doom ji noobal la nee kaar way nee kaar noobal la mm. soxnaay sa yaay nee kaar noobal nga macha sama doom ji yàlla nañ ko fekke taw ko ba léegi ci gis allahumma amiin tubarkalla macha allah waaye nag tey nee naa ko Fatou ku fi ñëw rek tubar fa kàlla macha lebal si wala dalaa ndax tan xam lu woo ba tax na bàyyi Modou Kane masa taag masa yar ndaak sa góor ki la bëgg ki la dooleel mu yàgg lool tubar fa kàlla macha allah ndaw talam day ñëw ci yow ndax nee na tubar fa kàlla macha allah boo wootee lambe sax day ñëw indi ay morsom takk yaa bëgg Baye moodu yaa ko doyloo yaa ko sopp yàqaloo ko dara riita mbale woo ko fenn Baye Modou loo sol moo ko ñaw te tubar fa kàlla macha allah nag couturière nga mais da ngaa yàgg ak Baye Modou man rond ma yàgg a fekkee tubar fa kàlla macha allah ba tax na Baye Modou kat mooy ñëw ci fan Mbakke. Baye nee na mi ngi lay ñaanal sa sëy bi barkeel mi ngi lay ñaanal nga sax dàkk ci sa sëy bi tubar fa kàlla macha allah ku ne xam ne ni Baye Modou kan ak ni mel ak yow ma sa tàgg sa yer ndaa ku ne xam ne ni muy def ay jigéenam. jigéenam bu woote loolu lambee tubar fakal la macha allah indi ay morsom takk te ci weeru koor la te takku jàkka lañ def Baye Modou nee na cinquante mille ci faatu Baye Modou nee na masa ndaak suñu góor ki ñu dooleel ki ñu bëgg ki ñu fonk lu ñu xewle mu taxaw ba mu jeex takk cent mille ci Baye Modou kan tubar fakal la macha allah miwlu miwlu bi borom sowrum bi ci Masalikul Jinaan borom sowrum bi ci Cambérène 2 teel a xëy guddee wàcc chéri maam jaara bàyyi àllin prince cent cinquante mille la laal faat mbàkke te dafa tombé koor defuñu dara takku jàkka tubar fa kàlla masàllaa nee na na sëy bi sedd guyi te jik la nee na nga sax ci dàkk yàlla defal la ci njaboot gu barkeel tubar fa kàlla macha allah damaa bëgg nag yéen internet bi ngeen xam ne fa fan mbàkke lii mu rëkk bàyyi moodu kan a ko ñaw tubar fa kàlla macha allah heure ménage rek heure bu jot nga dégg heure ménage madame Mbaye tubar fa kàlla macha allah nga yeggaleeg la la la félicité ndax dañ ne woon ci am ñii ne du ko def ñii ne mënu ko yaay yi mis moonu tubar fakalla macha allah bu rëb di demee ngorom di demee personnalité am di demee jomam di demee teel a xëy bu dee wàññi tubar fakalla macha allah mu dégg tey madame Mbaye réew mi dinañ jom mu dégg tey madame Mbaye réew mi dinañ. sa yaay nag dégg Miss Monde maa ngi leen nuyu. jàmm. kontaan nga tey sa yaay dañ koy maye kontaan nga. kontaan naa kay. lan ngay wax sa yaay. Hmm? lan ngay wax sa yaay. sama lan ak lan la lay defar. xam na lu muy defar ay gâteau ay chocolat ay tàngal. mais sa yaay mooy sa xarit ñëpp nee nañ sa yaay kase mooy sa xarit. waaw lan moo tax sa yaay nekk sa xarit. sama xarit xam na su ma nekkee sama xarit mooy sama xarit. da koy wax un ménage. lan ngay wax sa papa bu bees. sama papa bu bees. amadi baja sakurwaari ba sakurwaari waal sek hmm. nay waya sa yaay daal jamono ji madame Mbaye leen madame Mbaye day nuyu loo lan ngay ñaanal sa yaay ah loo koy maa la waxee arab la ba maal waxi merci beaucoup Miss